tey nag bisu tey bi li ñu dajale fii ci Ngélu mooy cérémonie remise u ñaari ambulance yoo xamante nii dañ ko wutal poste de santé bu Ngélu ak poste de santé bu Cikki Olof ndaxte dañoo remarqué ne bi ñu fi ñëwee gis nañ ne poste de santé yi dañoo rafle ay moyens de transport surtout ambulance ñu ne nag loolu priorité la lépp luñ ñu mënoon a jàpp nañ fexe ba loolu ñu saafara ko loolu moo tax tey ñu ne woon bi ñu toppatoo ambulance ba am ko te ñu ngi ciy bu baax a baax a baax wu conseil municipal bi nga xamante ni bi ñu leen proposé projet bi dañ ko defal ñu accepté ñu virement de crédit ñu dem am partenaire boo xamante ni moo ñëw fournir ñu ambulance yooyu ci muy lu am solo tey nag ñuy def cérémonie bi pour lancer ko. xam nga ne xel ne bu fekkee ne da ngaa nekk ci commune boo xam ne enclavé amul yoon amul parce que boo ne enclavé rek déjà donc piste sax dafay jafe bu jigéenu wérul wala ku feebar bu feebaree nekk par exemple mën a mat cinq à six kilomètres war a ñëw poste de santé bi takk sareet lay def soit sareetu mbaam wala fas pour mën a ñëw ci poste de santé bi léeg-léeg sax da gis ko xam ni ci yoon wi lay loru walla buy accès tim fekk na daanaka la ca des bareetul loolu la ñu xam moo tax ñu ne kon li njëkk mooy fexe boo am ay ambulance ba ñooñu ku ci fekkee te nga dara luy sooxe sa yaram très rapidement nga man ko da dem defi bu fekkone da ngay delluwaat ci histoire touti da nga nan ñun suñu deug deukan yépp liko soson moy chemin de fer bu ñëk chemin de fer xam nañ ne l'axe Thiès new axe bu amone doole la deuk deukan yëpp kenn deuk bo ci gis mu ngi à 3 4 5 6 7 km chemin de fer bi bi chemin de fer bi bim mu deewee deuk yoyu comme ñun suñu commune pratiquement deuk yi ko wër yëpp dañu enclavé wu amuñu chemin de fer amuñu tali Eh, def nañ ne xañ na am na benn piste bu jógee Gossas dem ngi new ñu amoon espoir ne piste boobu très rapidement dañ koy bitumer ci dina mën a permettre que commune bu Ngélo Guinguinéo ak euh, dëkk yu mel ne yi nga xamante ñoo nekk ci Gagnic ci beneen côté bi dinañ désenclavé désenclavé wu maanaam dinañ mën a léegi mën di dem ak dikk mais remarqué nañ ne piste boobu defi na nii c'est impraticable kenn mënatu fa jaar il faut que piste bi ñu bitumer ko il faut que tim état bi projet bi nga xamante président de la république am na ko pour bëgg a relancer chemin de fer bi mu gaaw ci parce que loolu luy gaaw a réglé waat problème mu dëkk yu mel ne suñ dëkk yii la léegi nag ñu rax cee tim ne bu fekkente ne dañoo am commune boo xamante nii dafa rëy dafa laaj ñu man koo tracer ay piste on avait solicité que ñu mën a am au moins lu war a mat vingt kilomètres de piste yu ñu distraire ci biir commune bi dina mën a permettre que circulation bi gën a gaaw mais tamit ambulance yi tey ñu am nii bu fekkente ne amuñu ay piste yu ñu ko mën a jaarale mais di jaar ci yoonu suuf yeeg pax yeeg kàmb yi ñu demee ñaari at ñetti at ñeenti at mu yàqu moo tax ñu ngi demander état mi nga xamante ni mooy pouvoir central que yooyu nga xamante ni mooy besoin yi te besoin yi muy piste muy courant muy ndox muy télécommunication parce que fii ñuy waxee yow fi mu ne sax pour nga woon nit sax jot ko dafa jafe il faut que état bi mu taxaw ñu très rapidement jàppale ñu ci ba ñu jóge ci difficulté yooyu. parce que jamono jii ñun toll besoins sociaux de base yi dama koy wax dama koy répéter mooy ndox mooy courant mooy téléphone mooy jàng boo ko réglé wul réglé woo dara suñu sañoon très rapidement problème yooyu dinañ ko réglé lu mu gën a gaawee. lol dina mëna permettre aussi tim ñu régler li nga xamanteni moy santé bi éducation bi santé bi nak bi nga xamanteni ñew na fi na poste de santé mais poste de santé yi dañu am une difficulté des nañ médicaments. cette année-ci budget bi dama de 1 million mu 2 millions poste de santé bu 1 million euh, de médicaments fekkoon nañoo tim ay matron ak yi ñoo xamante nii doon nañ ay bénévolat lañ newoon ci poste de santé yi ñu doon am lu lu ndaw yokkal nañ leen lañ doon fayeeku yokk nañ ci 50 pour cent pour ñu mën a gën a mën a gis seen bopp te am nañ yéene gën koo ful parce que xam nañ ne xel ne soxla nañ ko bu baax a baax a baax a baax. liñ leen di ñaan mooy ne xam nañ ne oto ambulance oto la ci oto dafa laaj entretien. moo tax sax bëgg nañu ñi nga xamante nii moom la ñuy jox chauffeur yi ñu nar a jox euh, ñu yore ambulance yi dinañ leen fexe ñu leen former bañ mën a gën a xam nan la ñuy utiliser équipement yooyu. dinañ jàppale tim poste de santé yi de telle sorte que chauffeur yooyu tim mairie bi moo leen di prendre en charge dina wut euh, defal leen contrat pour ñu mën a yor oto yooyu. mais ñu ngi sous la responsabilité des ICP mais mairie bi dina leen prendre en charge di leen fay. Nous devons entretenir cette ambulance parce que c'est notre challenge les doon ñu permettre aider en dotation de carburant nous avons manière intégrale mais nous avons bu dinañ pour motiver pour nous rendre rendre pérenne parce que normalement si on comme il le faut fii 5 ans nous avons problème d'ambulance.